asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, mbokk yi Touba ca kanam nooru daara yi ni seen mbokkum taalu bi Serigne Gueye moo leen di nuy di leen ziar xanaa di ñëw ak yéen rek ci bilan bi nga xam ne mooy bilan session de fonds du bilan Touba ca kanam muy ci weeru juillet deux mille dix-neuf ñi leen di wax ne eh, bi ñu xoolee compte deux mille dix-neuf mois de juillet gis nañ ne li fi jot daje ci compte yi mi ngi toll ci bu dee Touba. million cent 31 millions 178 mille cent 350 waaye bu dee dakaar nag gis nañ ne ci compte yi am nañ ci ci turu sëñ Alaji Ndaw million cent vingt 721 mille cinq 500 euh, bu ñu demee ci compte Orange Money bi tamit danañ gis ne la fa jot daje ci weeru juillet wi toll na ci 5 millions 102 mille 132. Diourbel Soxna Ndeye Ndiaye moo fa nekk euh, foofa ci weeru juillet dajale nañ fa cent cinquante mille CFA. Euh, waaye Bambey tamit sëñ Abdou Fall ci turam cent cinquante mille francs dajee na fa bu ñu demee Saint-Louis danañ fa fekk Serigne Rijal Seck ak Soxna euh, Rama Fall foofu tamit danañ gis ne deux cent mille moo fa daje ci weeru juillet bi su ñu demee ba Louga danañ fekk Serigne Moustapha Bassirou Mboup danañ gis ne moom tamit ci weeru juillet bi euh, gis nañ ne weeru juillet bi dajeel na ca un million cent soixante mille huit cent Kaolack ci njiitu Serigne Moustapha Touré danañ gis ne foofu tamit lafa jot a daje ci euh, mois de juillet mi ngi toll ci huit cent quatre-vingt-six mille francs. Mbacké Serigne Mama Fall ak sëñ Abdoulaye def nañ wersement mu toll ci cent quarante mille am na ay versement yoo xam ne anonyme la mooy ñoo xam ne xamuñu seeni boroom mi ngi toll ci un million trois cent soixante-douze mille neuf cent waaye tamit. bu ñu demee Ngaye eh, Maguette jiite mu nga fa verser quatre-vingt-dix mille francs CFA eh, jaayante làmp yi tamit ci weeru juillet deux cent mille francs dugg na ci waaye Ross Béthio Serigne Aliou Ñing eh, def na versement ci mois de juillet deux cent mille francs Gudéeri ci njiitul Serigne Damba am na versement quatre cent cinquante mille Daïra Babul Ayadi Agnam am na versement cent mille francs Kujaan ci njiitul Serigne Ibrahima Niang weer def na versement vingt trois mille. Kédougou ci njiitul Serigne Modou am na versement ci weeru juillet trois cent cinquante mille bu ñu demee Joal ci turu njiitu Serigne Bassirou Thiaw am na versement ci mois de juillet cent cinquante mille su ñu demee Fouta ci njiitu Serigne Mouhamed Fadal Dia am na versement cent mille Tamba ci njiitu Serigne Adama Niass am na versement cinq cent mille. coogo ci njiitu Serigne Bassirou Ciss 47000 Vélingara ci njiitu Serigne Mbacke Gueye 200000 Bokki Diawé ci njiitu Serigne Talla Kane 74000. Ourossogui ci njiitu Soxna Maymouna Mbacke def na versement mois de juillet 80000 francs Casamance ci njiitu Serigne Modou Khayri Gueye def nañ versement 135000 ci weeru juillet. Ngunjaan ci turu Serigne Modou Thiam ci njiitam def na versement cent mille francs total zone national bu Sénégal mi ngi versé ci weeru juillet quarante huit millions zéro soixante neuf mille six cent quatre vingt bu ñu demee ci wàllu université islamique bi nga xam ne mooy bu Cheikh Mouhamadul Mountakha moom Cheikh Mouhamadul Bassir yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér danañu gis ne Nigéria ci njiitu Serigne Alioune Badara Sina versé na ci deux cent quatre vingt seize mille. waaye danañ gis ne tamit ci siège yu Touba ca kanam ci def nañ ay versement mu toll ci cent quarante mille euh, waaye tamit danañ gis ne waa Kaolack ci njiitu Serigne Moustapha Touré def nañ versement quatre cent cinquante huit mille cinq cent. total bi yëpp ci université bi ci weeru juillet def na un million sept cent trente neuf mille cinq cent versé nañ ko ci keesu Touba ca kanam ci wàllu veen université bi. zone Europe bi danañ gis ne Turquie def na versement trois cent trente ci njiitu Serigne Ablaye Loum. Norvège def na versement cent soixante dix neuf mille huit cent ci njiitu Soxna Ami Ndiaye euh, Écosse def na versement trois cent soixante mille ci njiitu Serigne Ousmane Ndiaye Espagne Serigne Malick Dieng quatre cent quatre vingt mille huit cent treize ci mois de juillet euh, France ci njiitu Serigne Mourine Ndaw euh, def nañ versement un million quatre cent quarante neuf mille huit cent vingt cinq Italie am na jaayante bu fa am ci daayira Viterbo ak it sëñ yore Ndiaye def na fa jaayante soo ko boolee mi ngi nekk cinq cent cinquante neuf mille sept cent cinquante tali coordination bi moom versé nañ ci mois de juillet dix millions sept cent cinquante six mille neuf cent un Allemagne ci turu Serigne Abdou Salam Faye ci njiitam euh, ak waa daayira Bayern def nañ versement six cent vingt sept mille zéro quatre vingt quinze Angleterre ci njiitu Serigne Fallou Diop def nañ versement un million total zone Europe bi nag mi ngi nekk seize millions zéro quarante quatre mille cent quatre vingt quatre. suñ demee ci zone Amérique ci. Argentine ci njiitul Serigne Pape Soda Sey ak Serigne Talla Sall euh, def nañ versement six cent quarante et mille sept cent ci mois de juillet. Canada ci njiitu Serigne abibu Ndiaye def nañ versement six cent vingt six mille euh, francs. CFA. États-Unis d'Amérique ci njiitu Serigne bu Seck def nañ versement un million trois cent vingt-huit mille deux cent cinquante total zone Amérique bi ñi ngi versé ci mois de juillet deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille neuf cent cinquante. waaye bu ñu demee ci zone Afrique euh, dinañ gis ne euh, Afrique du Sud ci njiitu Serigne Mor Dieng ak Serigne El Hadj Guèye def nañ versement quatre cent quatre-vingt-dix mille ci weeru juillet. bu ñu demee Niger ci njiitu Serigne Mamor Ndiom dinañ gis ne def nañ versement ci mois de juillet cent quatre-vingt-neuf mille euh, bu ñu demee Angola ci njiitul Serigne Mamadou Ba def nañ versement cent quarante-cinq mille su ñu demee Guinée Bissau ci njiitu Serigne Modou Atasek def nañ versement ci mois de juillet huit cent treize mille cinq cent su ñu demee Gabon ci njiitul Serigne Pape def nañ versement cinq cent quatre-vingt mille francs ci mois de juillet su ñu demee Maroc ci njiitu Serigne Albouri Seck danañ gis ne def nañ versement deux cent trente huit mille ci mois de juillet euh, su ñu demee Gambie ci njiitu Serigne Khadim Thian def nañ versement un million cinq cent vingt deux mille su ñu demee Mali ci njiitu Serigne Aliou Wàcc def nañ versement cinq cent mille su ñu demee Cap Vert ci njiitul Serigne Abdoulahad Amar def nañ versement. cinq cent dix-huit mille Djibouti ci njiitul Serigne Alioune Seck def na versement huit cent quarante cinq mille total zone Afrique bi ci weeru juillet mi ngi nekk quatre millions neuf cent quatre vingt neuf mille cinq cent total encaissement ci weeru juillet bi yëpp ci Touba ca kanam mi ngi nekk soixante treize millions cent trente huit mille huit cent seize francs suñu xoolee li génn lépp ci weeru juillet ci ay décaissement bérébu fajukaay bi nga xam ne moo nekk Kër Gol euh, def nañ ci seize millions deux cent onze mille cinq cent cinquante soo ñëwee ci bérébu fajukaay bi nekk Boborel def nañ ci quatorze millions neuf cent onze mille huit cent ci mois de juillet soo ñëwee ci euh, euh, bérébu fajukaay bi nekk Daaru Xadim def nañ ci million cinq cent vingt sept mille sept cent université bi nga xam ne mooy bu Cheikh Mouhamadou Mountakha te Touba ci kanam am ca benn chantier bu huit cent millions ci weeru juillet dépensé nañ ci trente trois millions neuf cent soixante dix mille huit cent cinquante soo ñëwee tamit ci salaire yi ak charge fixe yi nga xam ne mooy am ci Touba ci kanam ci weeru juillet mi ngi toll ci deux millions cinq cent vingt deux mille cinq cent soo ñëwee ci benn camion boo xam ne jënd nañ ko pour chantier yi muy benn ak frais yi nga xam ne mécanicien yi ko doon taxawu mi ngi nekk trente million vingt mille francs suñu xoolee tamit ci assainissement bi muy euh, euh, débouchement yi ñu doon def canal yi te sëñ Mountakha joxoon ci ndigal sëñ Cheikh Lappé euh, defoon nañ ci un million huit cent quatre-vingt-douze mille cent budget bi ñu doon def ci màggalu Daaru Salaam bi mi ngi toll ci soixante-huit mille muy frais yoo xam ne day jëm ci bis bi ci stand yi nga xam ne moom lañ fay taxawee waaw waaw lu massification suñu demee ci frais yi nga xam ne ñetti ambulance yi ñu mujjoon indi ak peinture bi ak defaraat bi ak li ci aju yëpp ñu ngi ci dépensé quatre cent quatre-vingt-quatorze mille quatre cent ci weeru juillet euh, total communication jamono bi nga xamee ne ambassadeur bi ñëwoon na fi fii ci Touba ak euh, yi nga xam ne moom lañ fi doon def muy ay publicité Touba ci kanam dépensé na ci cinquante mille francs Euh, techniciens yi nga xam ne ci surface su Lansar bi euh, pour quatre mois salaire euh, dépensé na Touba ci kanam dépensé na ci deux cent quarante mille francs ci mois de juillet. total frais transport collecteur caisse chaise gasoil frais bancaire yëpp mi ngi toll ci weeru juillet bi sept cent cinquante cinq mille cent quinze francs loolu nag suñ ko totalee total décaissement yëpp ci mois de juillet mi ngi ñuy jox cent deux millions. six cent soixante quatre mille six cent quinze euh, su ko defee nag dañuy jël li nga xam ne Touba ci kanam moom la jot a encaissé ci mois de juillet bu ngeen fàttalikoo mu nekkoon soixante treize millions quatre cent trente huit mille huit cent seize ñi moyen ci nag kon cent deux mille yi nga xam ne moom lañ fere cent deux million six cent soixante quatre mille six cent quinze loolu lañ fere kon ci weer bi daal am nañ négatif vingt neuf millions deux vingt cinq mille sept cent quatre vingt dix loolu mooy différence bi kon li ñu fere ci weer bi dafa gën a bëri li ñu encaissé ndax ñi ngi encaissé soixante treize millions quatre mille huit cent seize waaye ñi ngi dépensé cent deux millions six cent soixante quatre mille six cent quinze kon loolu mooy différence bi muy vingt neuf millions deux cent vingt mille sept cent quatre vingt dix neuf suñu xoolee ci mois de juillet mois de juin le 30 juin compte bi mi ngi tolloon ci cinq cent cinquante deux millions six cent quatre vingt sept mille cent quatre vingt huit bi ñu ñëwee nag tey ci kees gi ci 31 juillet 2019 Touba ca kanam keesam mi ngi am cinq cent vingt trois millions quatre cent soixante mille trois cent quatre di sant di gërëm di baalu àq di ziare di jéglu bu baax a baax seen bokkum taalibe bi Gueye wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.